mbokk yi kon incha allah ñu ngi war a jël aaya juróom benn ci suratu ruum ci suñu borom di waxee ni wacda allahi la yuxlifu allahu wacda in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من, يهد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane ci juróom-benneelu aaye bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرمني وعد الله loolu mooy déggu bi yàlla laa yuxlifu llahu waada yàlla day du wuute ak i digam walakin aksara annaasi laa yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi day ñoom nekkuñu di xam yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia xam nañ nag la feeñ ci dunduk àdduna gi wa hum an il axirati hum gaafiluun waaye ñoom de alaxira nekk nañ di aji di ko saggane awalam yatafakkaru fi anfusihim xanaa ñoom xalaatuñu ci seen bopp maa xalaqa allahu samawati wal ard ne yàlla di bindul asamaani ak suuf wa ma baynahuma illa bil xaq ak la nekk ci diggante ba lu dul ci dëgg wa ajalim musamma ak dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare wa inna kasiran min annas doonte ne nag la bari ci nit ñi ñoom bi liqaai rabbihim la kaafiruun ci daje bi ñuy daje ak seen boroom dañ ko weddi awalam yasiru fi l ard xanaa ndax ñoom dañoo doxul ci kaw suuf fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina min qablihim ñu xool naka la nekk mujjug ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon kaanu ashadda minhum quwwa ñoom day ñoo leen gënoon a tar ci kattan wa asaarul ard ca it nekkoon nañ bayoon suuf wa amaruha daal di dëkke suuf aksara mimma amaruha lu ëpp la nga xamee ne ñoom ñii dëkk nañ ko ko wa jaatuhum rusuluhum bil bayyinaat mu dikkaloon leen seen yonent yi ci lay yu leer fa ma kaana allahu li yazlimahum nekkul woon ne yàlla moo leen di tooñ walakin kaanu anfusuhum yazlimuun waaye ñoom dañoo nekkoon di tooñ seen bopp mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu ci li ñuy jàng démb waa ruum day waa faris gañe nañu leen ñooñu nga xam ne ñooy yéeféer yi gëmul bisu penc gëmuñu benn yonent waaye day balaa juróom-ñeenti ati di mat ñii di waa ruum daañ wëlbati ko gañe leen loolu nekkoon lu yéeme waaye suñu borom mu ne digle bu yàlla dige te yàlla du wuute ak i digam mbokk suñu borom yàlla lu mu dige def lu mu dige def ko xam leen dig bi gën a rëy bu mu dig doomu aadama yi mooy dig na leen ne dana dana leen dekkal gannaaw ba ñu deeyee doonte ne ni am na ay dig yum ñu dikk masalan suñu borom nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib képp ku ragal yàlla na nga ko war a ragale dana la may génn waay wërsëgal la foo ko foogewul suñ borom mi ngi ñuy wax ni wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifu lépp lu ngeen joxe ci yàlla tax danaa ko wuutal lu gën loolu kon jullit moom day gëm digi borom bi subhanahu wa taala suñu borom nag mu ne waaye li ëpp ci nit ñi ñoom xamuñu xamuñu ana luñ xam mooy xam nañ li feeñ ci dunduk àdduna te mbokk loolu feeñ ci dunduk àdduna moo tax doomu aadama jël li ko yàlla tàggatal ba man cee defar ay charrette man cee defar ay oto man cee defar ay train man cee defar ay avion man cee defar fusée yi naaw ba kaw asamaan man cee defar ay usine ak ay lu nekk tey doomu aadama lu nekk man koy def mais loolu mooy li feeñ ci àdduna muy zahir bi mais lan moo taxoon yàlla subhanahu wa taala indil ñu loolu lépp daa di ñuy wax ne saxara lakum ma fi samawati ma fi l ard moo ñu tàggatal li nekk ci kaw asamaan ak suuf yépp mooy loolu yàlla da koo bindoon pour ñun ngir ñu man koo jëfandikoo ba mën a jaamu yàlla amul lenn xéewal lu yàlla wàcc ci kaw suuf lu dul ngir jàppandal doomu aadama mu mën a dund ci kaw suuf ba mën a jaamu boroomam moo tax mu ne wa aataakum min kulli ma saaltumuhu bul jàpp ne kenn moo découvrir portable déedéet suñ borom bi mu demee ba xam ne lii di doomu aadama yi war nañ jëfandikoo ay leetar xelal na leen ñu jëfandikoo lekk bañ demee ba war a jëfandikoo ay télégramme mu xelal leen ñu jëfe télégramme bañ demee ba war a jëfandikoo portable mu xelal leen ñu ñu jëfandikoo portable ay wa aataakum min kulli ma saaltumuhu lépp lu ngeen laaj pour mën a dund ci kaw suuf yàlla jox nañu ko léegi nag li ëpp ci doomu aadama yi la taxoon yàlla bind leen ca mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun mooy yow lépp lu nekk ci kaw suuf yow doomu aadama yaa ko moom doomu aadama lu mu jël rek yàlla may na ko ko bu la neexoon dem digg àll ci àll ya dagg fa sa tool dañ naan yaa ko moom jeex na demal jàpp gaynde indi yaa moom demal jàpp ñay indi yaa moom amma yow yàlla dalaa bind pour moom ñu bëri ci doomu aadama nag dañoo jàpp ne yàlla da leen bind pour matériel boobu moom la ñuy xëyal moom la ñuy gontul mooy tax ñuy bëgg kuñ bëgg moo tax ñu noono kañ noono moo leen di génn seen réew moo leen di def loolu lu nekk mbokk nag xoolal la suñu borom jiital borom bi daa jiital ne laa yaalamun xamuñu su ko defee mbokk scientifique bi nga xam ne moo def découverte du siècle nga gis ko ci xamul li taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf kooku jaahil la am déet moo tax waa Màkka ba ñuy tagg abu jahal di ko tuddee abul xakam ngiree xam-xamam bu yaatu ba lu mu wax kenn du ci teg baat islam moom dafa ñëw ne mooy abu jahal ñu nga noonu bàyyi bu réer bu sànq bi ngalawaay yow ndawal julit bu la occidentaux yi yéem ak seen découverte yi yéem leen ak xar yeeg mbaam yi nga xam ne nii ci zahir gisuñu leen ñu nekk di jaamu yàlla donte ne ci baatin xar yeeg mbaam ñoo leen gën ndax ñoom ñi ngi jaamu seen borom ca na leen yàlla fixé ca jaamu googee loolu it muy wone ne yow julit baa doo mel na ñoom ak bari tey ay julit yoo xam ne fexe nañu ba mën a jël ab camion dawal ko ba ki dugg jàng nañ ba mën a opérer doomu aadama nekk des médecins ak bari loo xam ne doomu aadama yi xam nañ ko ca ay jurit lañu ca boo leen laajoon songu farata sax mënuñu la koo leeral taaye sax mënuñu la koo leeral gis ndawal jurit boo xam ne dem na ba am bac maîtrise bal am na doctorat waaye boo ko laajoon lan mooy faratee julli xamu ko yooyu mbokk da ngay gis na tamit ay erreur la yoo xam ne day dal lu bari ci jurit ñi dal waaye na nga xam ne julit xam-xam dëgg dëgg dëgg mooy xam li tax yàlla bind la xam-xam dëgg-dëgg mooy xam nooy jaamoo yàlla lépp loo mën a xam bu doon mën ngaa wulbite asamaan ak suuf yépp ca xamoo li taxoon yàlla bind la xamoo dara ma tax suñu borom ne laa yaalamoon xamuñu ne seen xam-xam lu tax laa yaalamoon mooy xam-xam baa ngi yem ci zahira min alxayaati dunia kon adduna am na zahir mooy li nit ñiy dawal waaye mu am baatin baatin ba mooy mboolem loo fi am nga jëfandikoo ko ba mën a jaamu sa borom jënd wa ala borom boobu nag ni allaaxira moom sàggane nañ ko ca mbokk allaaxira mooy sunu teeruwaay lépp looy liggéey ci àdduna kese tax perte nga ndax bis dina ñëw nga daal di dee ca boo dee perte nga ci amma lépp loo doon liggéey ci àdduna ca bi ngi liggéey yaa ngi ci yéene payug yàlla allaaxira da ngay gis ne loolee moom amul benn pertement bu nekk ci loolu borom boobu nag wëlbatiku ne ay yéeféer yi xanaa xalaatuñu ci seen bopp ci ne yàlla bindul asamaan yeeg suuf ak li nekk ci diggante bi lu dul ci dëgg ay mbokk sunu borom yàlla mu ne wa ma xalaq na samawati wal ard wa ma baynahuma laa iba mi ngi noon baatila bindu ma ko ci neen yàlla bi muy bind asamaan yi mi ngi ñuy woon kattanam mi ngi ñuy woon xikmaam bi muy bindal suuf mi ngi ñuy woon yërmandeem ak xikmaam ak kattanam yow doomu aadama xoolal bi la yàlla bind nga commencé sa kar yu bopp ba sa yu tànk xoolal ni nga harmonisé ni nga normalé li nekk ci yow ci ay milliards de cellules yépp yàlla teg ko place am ndax jàppal nga ne yàlla dalaa indi ci kaw suuf ngay lekk ko naan ak sëy bu xëy dee rek lépp dox fa tàbbi géej déedéet mbokk yàlla dalaa indi ngir nopp la ëllëg ki si biir mu dekkal la ngir laaj la ana fan nga jëfe woon ak mbiram ba pare yi it nga xam ne lépp am na fu mu yem donc bu scientifique yi ñuy wax naan jant bi am na lu ñu tuddee l'expansion du soleil am na fu mu war a yem doon dana seeni caaxaan naan dans cinq milliards d'années dañuy wax lu leen neex waaye li ñu gëm mooy suñu borom nee ne lépp am na fu mu war a yem waaye yow loolu bu mu la itteel xam nga lu lay war a itteel mooy yow am nga foo war a yem te fi nga war a yem fan la kañ la loolu lu jar a tiit la lu jar a bàyyi xel la am na mbokk yi nekk Makka ñu ngi nettali ci jàkka butxa bi nekk biir makka seen imam bi mi ngi tuddoon sa sadaan az-Zuhrani dimanche bi passé dafa ñëw jiite leen fajar bi mu leen jiitee fajar ba pare sëlma sëlmal jàkkaarloog ñoom am yenn kaddu yum leen ñaax ba mujj ñu gis ko muy lox gaa yi yëkkati ko tëral ko mu faatu ci seen kanam mi ngi noonu mu faatu ci seen kanam ba ko xoolal déegu rafet gi ah xoolal ni mu mujjee bi muy ñëw kan moo ko waxoon ne yaa ngi dem dee ji xamu xamu ci dara jamono boobu am na koo xam ne nii ma nga dee ci night club ndax yéen a ngi fàttali ko waa Orlando ah góor jigéen yu bon yooyu sabe woowu nekk seen digg caaxaan ndekete dee mi ngi ñëw di daje ak ñoom ndax yaa ngi fàttali ko waa Cataplan ca France seen digg caaxaan seen digg musique yi ndekete dee mi ngi ñëw si ñoom suñ borom nag mu ne képp ci utal naa ko digg bu ñu bu ñu bu ñu tudd ba pare kon ngallaawaay sa xam-xam bu ko yemale ci xam-xamu àdduna jéemal xam lu lay jëriñ ëllëg boo dajee ak sa borom jalla wa ala borom boobu ne li ëpp ci doomu aadama yi day ci daje bi ñu war a daje ak seen borom dañ koy weddi naam loolu muy dëgg li ëpp dañoo weddi daje bi tey jii boo xoolee hatta en Occident ñiy tudd ay chrétien lañu sondage yi ñuy def ci ñoom 60 pour cent ñoom dañ naan ñoom gëmuñu ko dañ ko def rek pour wàllu culture mais pas lu ñuy gëm day dekk am na kon man nga waxee adduna bi noonu la la ëpp ci chinois yi gëmuñu ko la ëpp ci hindu yi gëmuñu ko kon la ëpp ci nit ñi gëmuñu àllaaxira am na donte ne malheureusement même boo ñëwee ci ñi ko gëm nañ ko waroon a gëme gëmewuñ ko ndax ñu bari nañ gëme àllaaxira mooy dafay am koy yaakaar fexe ba am ngërëmam bu fi jógee nga am ngërëmi ay ay ay ay doomam ëllëg gi si biir kooku moo réglé ses problèmes ci kanamu yàlla la ëpp ci doomu aadama noonu lañ jàpp noonu lañ jàppee àllaaxira gis ngeen waaye mbokk àllaaxira mooy bis bi nga xam ne kenn du mënal moroom ma dara lépp day dellu ci yàlla jalla wa ala laa tamliku nafsun li nafsin shay'a borom boobu nag ne xanaa ñooñu weddi àllaaxira doxuñu ci kaw suuf ñu xool naka la nekk mujjub ña leen fi jiitu woon samay waa aat nga xam ne soriwuñu woon dara waa makka waa samuud mi ngi nekkoon ci biir arabi saoudite soriwul woon it makka waa qawmu luut nekkoon ci yoonu Sham soriwul ba tey makka xanaa doxuñu ñu xool ñooñu fi jaaroon weddi woon allaaxira weddi mbuguluk àdduna yàlla mbugul leen mbuguluk àdduna te wala fi dañ naan ki nga xëy mu jox la ndékki su la waxee da nga reer nga war koo gëm ñu ngi noonu ndax bu njëkk ndékki desu reer la daan doon kon maadaama yeneen ci ñëw nañu ne ñaara am su nit ñu gëmul yàlla dañ leen mbugal àdduna mbugal leen allaaxira ñu weddi yàlla mbugal àdduna kon mbugalu allaaxira ba war nañ koo gëm ba tax suñu borom ne xanaa doxuñu ñu xool ña leen fi jiitu woon te it kattan gi ñuy woote woo te ndaka jekk yii fii ñu ëpp kattan bokk julit ndaka jekk moo tax ñu daan tëkku julit nii kattan googu ñuy woote woo xanaa xamuñu ñi leen fi jiitu woon ñoo leen ëppoon kattan mbaa ko gis nga xaw mu huut muy waa aat suñu borom nee na mosuma bind ñu mel noonu ci kaw suuf wa samuut naka noonu gannaaw ba suñu borom ni ñoo leen ëppoon nuñ daan liggéeyi kaw suuf ay asaarul ard lañ daan bay di ko génne ñoo leen ko ëppale fuuf xaaru naa nga ne ay magasin rek caabi yee suñu borom nee na la tanu bil usbati uli quwa ay mbooloom ponk la koy mën a yëkkati gannaaw bi suñu borom mu ne lañ dundoon dund leen ko xaw ma noo xam ngeen di dund junni at mi ngi noonu génération yi ci topp dund ay huit cent ñii sept cent mi ngi noonu ba ay wàññeeku ba jamono Ibrahim mu gën a wàññeeku dem ci ay cent trente ki cent cinquante ila axiri loolee kon da ngay gis ne ñoo leen ëppoon kattan ñoo leen ëppoon ay pexe teewul ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala ba mu yónnee ay yonent ñu weddi ko yàlla da leen a mbugal borom bi mu ne taw ñu ma leen ñoo toon seen bopp ay koñit yéen tamit xam leen ne mbugalu ko yàlla bu dalee seen kaw yàlla tooñu leen yéen a tooñ seen bopp Cheikh Ousmane barakallahu fiik xam naa ñu wax it rek ne woor ba cinq heures bëgg a def tajwid neexul de saawaay ñiy def kaset yi ngeen di dégg dañu nekk ci ay studio lekk ba suur naan ba mandi doo ko jàng waaw kon suñ borom mu ne summa kaana aqibata alladina asaa'u su'a gannaaw ba noonu la nekkee mujjug ña doon ñaawal la nga xam ne mooy aw ñaaw tiif kese an kazzabu bi ayati llah ngiree weddi gañ weddi aayay borom bi wa kaanu biha yastahzi'uun ca ñoom day dañoo nekkoon di yijji la nga xam ne mooy aaya yooyee allahu yabda'u alxalqa summa yu'idu yàlla mooy sos mbind gannaaw ba moo koy baamu summa ilayhi turja'un te ci yàlla moomu day ca lañu leen di delloo ëllëg si biir wa yawma taqumu saa bis boo xam ne day taxaw bis penc ba yublisul mujrimuun dana ñàkk yaakaar ay dana dagg pexeeg yaakaaru mboolemi defkati bakkaar yu mag yi muy kàccoor ya walam yakun lahum min shurakaihim shifaa doonte ne du leen ñeel ci seen bokkaalekat ya ay shifaa yoo xam ni dañ leen di ràmm wa kaanu bi shurakaihim kafirin te daan nekk ca ña leen doon bokkaaleel di leen weddi wa yawma taqumu saatu yawma idin yatafarraquun bis bi bis bi bisi penc di taxaw keroog day la ñuy teqalikoo fa amma fa amma allazina amanu wa amilu salihat bu dee nag ña nga xam ne dañoo gëmoon ci jëf-jëf yi yiw ya fa hum fi rawdatin yuxbaruun ñoom day ña nga ca biir jardin ya ñu leen di bégal mi ngi noonu mbokk suñu boroom mu ne yónni woon na ay yonent ci seen xeet waaye mujjug ña nga xam ne dañu ñaawaloon te mooy ña doon bokkaale man jaa bi sayyi'a ña nga xam ne dañu doon bokkaale day seen mujj moo nekkoon lu ñaaw amma ña gëmoon ca ragal yàlla wa anjayna allazina amanu wa kaanu yattaquun ñooñu yàlla musal na leen waaye mbokk aay bi daf lay déggloo ci ni dekate yoote sunu borom nee na aqibata allazina asaa'u su'a képp ku nekk ci ñaawteef sax ci nanguwa dellu gannaaw sëg mujj day ñaaw te loolu mbokk règle la boo xam ne règle générale la daf ko tu bàkkaar da gaaw a dee mais bu gaawul dee rek ak mujjam day ñaaw xaw ma ndax mas ngeen a gis màggetum góor jigéen nam yi rek a joo ko yijjee ko ak ak kanamam gu ras da ngay bëgg wàcc sax gis ngeen lu tax mooy noonu la demee képp koo xam ne da nga nekkoon di ñaaw ñaawal ci doomu aadama yi di mbëru seen kaw mujj gu ñaaw rek nga mën a am asaa'u su'a baram bi nee na nag la ko waraloon weddi nañ samay aaya di saboote samay aaya te yonent yëpp bu ñu ma sànn wax mbugal day ñëw loolu ay reele leen daan def ni ngeen noonu ay ree la leen daan def di saboote yonente yàlla yi maa li haza rasul yaakulu taam wa yamsi fi l aswaq ah ila axiri borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne xanaa xamuñu ne yàlla day moo sosoon te mooy baamu te mbokk julite suñu borom yàlla jalla wa ala kattan gi mu am ci bindoon bu njëkk naka la yéefiri mën a wedde ne amul kattan pour bindaat ngi noonu te loolu comme ni ngeen ko doon waxee benn philosophe julit bi rajo woon ak philosophe athée athée bi na ko waaw yéen da ngeen a gëm ne dafa am ku bind créateur yàlla mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ne ko waaw yow mi ko gëmul lu tax lii lépp am mu ne ko fekk ñu ngi doon discuter ci àllaaxira ndax àllaaxira day am ak du am mu ne ko lii am ci àdduna mu ne ko lépp par hasard la am rek mu ne ko yow par hasard nga am man par hasard la am lépp par hasard la am mu ne waaw mu ne ko d'accord mais kon kay bu ñu dee ba pare mën nañ amaat par hasard waa ji taxaw xamul lu mu koy wax parce que mënuloo gëm quelque chose ak son contraire comme ñun dañoo am par hasard lañ gëm kon mën nañ amaat par hasard amma bu dee yéeféer yi ñoom gëmuñu ne par hasard la ñu am ñoom dañ gëmoon yàlla mooy bind mais li ñu leen di woon mooy yàlla mu mu bu dekkal ak jaamam suñu borom nag mu ne man maa sosoon man maay baamuwaat te loolu koy gars yi répété mbir moo gën a yomb créé ko gis ngeen yabda'u wa yu'id borom bi subhanahu wa taala mu ne te doomu aadama yi fokk ñu delloo leen ci yàlla mbokk foo mën a deeyee deeyal ci biiru baleen mu lekk la nga rees deeyal altitude mille mètres nang d'altitude avion ba nga explosé doon doom lu mu yàgg-yàgg suñu borom yàlla dañ la defaraat gannaaw ba ñu ginnewaat la ci biir suuf gannaaw ba malaaka yi escorté la indi la ci kanamu borom bi jëll wa ala borom boobu nag ne bisu penc lay bu ñëwee ca lay désespéré ca lay ñàkk yaakaar mboolem yéeféer ca mbokk ab yéeféer fii mi ngi dund mi ngi am yaakaar ci yàlla ndax yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem amul lu ko ab jaam di def ci kaw suuf lu dul bu tubee mu ball ak lu mën a imaginer nag ba yeneen ci bi alayhi salaam wax ñu ci benn exemple extrême benn waay boo xam ne téeméeri bakkan la faat gis ngeen mais ba mu tubee yàlla da koo baal kon amul looy def ci kaw suuf lu dul boo tubee yàlla baal la amma nag boo demee ba àllaaxira naan da ngay tub foofu foofu moom c'est trop tard foofu moom c'est trop tard keroog moom yublisul mujrimun kàccor yi foofu la ñuy ñàkk yaakaar léegi nag ña nga xam ne mooy seen bokkaale ya gisuñu ci kenn ku leen di ràmm ci kanamu yàlla mi ngi noonu gisuñu ci kenn ku leen di ràmm ci kanamu yàlla te wallahi loolu la ñu bëri jàpp masalan sama benn mbokk bamba ñaan mi ngi doon dund ngeen fi ci jàkka ji dégg na benn waay bu koy wax naan ko ñun waa mbooloo sàngam day ku ñu tooñ see mbooloo man def ko fii de àllaaxira bu ñu demee perte nga ndax suñ diw rek la ne lépp gis ngeen yooyu la doomu aadama yi gëm jàpp ne yow boo nekk ci kaw suuf njaalool alal ju ñëw lekkal sàccal tooñal parce que am nga avocat bu wóor bu ñu demee yomal qiyaama mooy taxaw ci kanam yàlla ne ko kii saas ngóor la ñu tàbbal la aljanna waaye borom bi mu ne déedéet ñooñu ñu yaakaar ne ñoom la ñuy bokkale ak seen borom ñoom ñooy jëkk a denc ñoom ñooy jëkk a denc ñoom ñoom it ñuy weddi leen daa di ne yàlla wallahi rabbina ma kunna mushrikin yàlla mosu ñoo bokkaale bokkaale kat yi denc ñoom borom bi subhanahu wa taala nag ne keroog day la doomu aadama yi di teqaliko na am dana am teqaliko bu mag ba mooy diggante jullit ñi yéefir yàlla teqale leen fariqun fil janna wa fariqun fi sayir mu am mbooloo mu jëm ajjana ak mbooloo mu jëm sawara waaye keroog waa sawara it keroog la ñuy teqaliko képp koo àndaloon ci ab sëy ànd ak moom ci liggéey ànd ak moom ci mbon gu mu mën a doon keroog ay noon yu tar ngeen nekk ci biir sawara ñu ngi noonu doon ay noon suñu borom yàlla teqale leen ku nekk ñu dugal ko ci ruq ba nga xam ne fa la ñu koy mbugale du leen jëriñ mbokk gañ bokk ci biir sawara ci dara ñu ngi noonu borom boobu nag ne bu dee ne ñi nga xam ne dañoo gëmoon ñoom ca doon def lu baax ñi ngi ci biir jardin ya ñu leen di bégal gis nga ni sunu borom wax yuxbaroon ñu leen di bégal mbokk sunu borom mu ne ajjana day fiha ma tashtahihi al anfus wa talazzul ayun ajjana lépp luy bànneexal doomu aadama ma nga fa lekk ga naan ga musique ba mu ngi noonu musique ba da nga xam ne muy xuurul iin nañuy woyele seeni borom kër garab ya nekk biir àddina bu ñuy jaayu la ñuy génne ci musique la fa nekk ci taar suñu yonente sallallahu alayhi wasallam nee na àddina la fa nekk bët mësu koo gis te yéen ñiy xool Hollywood yéen ñiy xool lu bari ci àdduna bi tey jii li doomu aadama defar kenn xamul nu mu toll waaye nee na àdduna dana jeex te doomu aadama du gis lu mel na àjjana àdduna dana jeex te doomu aadama du dégg lu mel ne àjjana adduna dana jeex te doomu aadama du xalaat lu mel ne àjjana am na ñu ñuy tuddee ay science fiction ñoom dañuy imaginer ay mbir yoo xam ne xëy na bu doon am fii ak un siècle deux siècles lay am wala sax du am ba faw ñu koy imaginer ci seen xalaat waaye sunu yonente alayhi salaam nee na wala xatra ala qalbi bachar kenn mënul imaginer ba imaginer àjjana lu mel àjjana dem gis rek la yàlla na yàlla yóbbuñu fa tax suñu borom dañ leen fee bégal loolu muy wane ne mbokk suñu borom mu ne wa iza raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira boo xoolee gis ay xéewal ak nguur gu màgg kenn du liggéey ñépp ay buur la ñuy doon Moustapha nag ak les témoins de Jéhovah yi dugg suñ kër yi di intoxiqué suñu njaboot gi dañ naan la waaw day dekki am na mais yàlla day dekkal doomu aadama yi ci kaw suuf ñépp bëggante noonu du am nit ñi di liggéey ci jàmm dugg fii gaynde yi ànd ak bëy yi ila axri waaye mbokk loolu seeni xalaat rek la àddina ku fu dugg buur ngay doon bu ñuy teral guddi di la teral bëccëg mi ngi noonu fahum fi rawdatin yuxbaroon yal na yàlla def ko suñu wàccuwaay
في السماوات والأرض وفي تلك آيات لقوم يتفكرون
barakallahu fiik suñu boroom jalla wa ala mu ne wa amma allazina kafaru bu dee ñi nga xam ne day dañoo weddi wa kazzabu bi ayatina ñu daal di weddi ba tey ay ne sunu aaya yi du aaya yi dëgg wa liqaa'i al axira daa di weddi it daje ba ñu war a daje ci alaxira fa ulaika fi lazabi muxdaruun ñoom day daan nekk ci mbugal ma ñu leen fay teewal fa subhaanallahi xiina tusbixuun xiina tumsuun sell day ñeel na yàlla jamono ja ngeen di ngonnal mooy du jamono ja ngeen di dugg ci guddi wa xiina tusbixuun ak jamono ja ngeen di xëy wa lahu alhamd fi samawat wal ard ñeel na ko cant ya ci asamaan yeeg suuf wa ashiyan ak ca ngoon ya wa xiina tuzhiruun ak jamono ja ngeen di dem ca njolloor jamono tisbaar yuxriju alxaya min almayit mooy génne lu dund ca lu dee wa muxri wa yuxriju almayita min alxay mooy génne lu dund ca la ca ca lu dee ca lay dund wa yuxyi al arda baada mawtiha mooy dekkal suuf gannaaw ba suuf dee wa kazalika tuxrajuun naka nii dalañ leen di génnee wa min ayatihi bokk na ci kawtéefam an xalaqakum min turab ne mi ngi leen binde ci suuf ay suñu bay aadama summa ida antum basharun tantashirun gannaaw bi ngeen nekk ay nit ñoo xam ne ñuy tasaaroo lañu wa min ayatihi bokk na ci kawtéefam an xalaqa lakum min anfusikum azwaja ne moo def bind ñeel leen ci seen bakkan yi ay peer li taskunu ilayha ngiree ngeen di mën a dale ca ñoom wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mu def seen diggante lii di cofeel ak yërmande inna fi zalika la ayat nekk na ci lii day ay kawtif li qawmin yatafakkaruun ñeel xeet yoo xam ne dañuy nekk di xalaat mi ngi noonu mbokkoo suñu borom mu ne waa ajjana ña nga ci ajjana ñu leen di bégal waaye ñi nga xam ne weddi nañu seen boroom weddi seen aayay boroom weddi ne allaaxira amut ñu mel nii day fokk ñu teewal leen ci mbugalum borom ma subhanahu wa taala amuñu fenn fuñ ca mën a rëcce borom boobu nag jalla wa ala dafa yeyoo ci ñu sant ko te ñu jaamu ko doonte ne ni la waroon mooy chaque seconde ñu sax di ko sabbaal waaye suñu borom xam nañu ne kattan googu mayuñu ko donte ne may na ko malaakaam yi mbokk malaaka yi suñu borom mu ne yusabbihuna layla wan naar la yaftaruun malaaka du dokk ay sabbaalam abadan donte ne yow yàlla def na ci sa biir jëmm ji benn lumb boo xam ne na muy sabbaale yàlla du dog abadan bis bu dogee rek ñu naa nañ seeti pexe musiba am na mi ngi noonu muy sa xol bi nga xam ne du dee doomu aadama bu normal dana def ay soixante douze battements par minute depuis nga nekk ay weer yu néew daanaka ay deux mois sa biiru yaay xol baa ngi commencé di baab ngi noonu di dem di dem balaa say jëmm mat sax ba baa ngi génn da ngay gis koo xam ne xolam bi tëgg na ba cent ans musta arrêté loolu nag suñu borom yàlla itamit comme mënuñoo sax ci di ko sàbbaal mu wutul ñu ay waxtu mu ne fa subhanallah xiina tumsuun dee leen sabbal seen boroom heure bu guddi jotee te loolu mooy bu jant bi sowee loolu day yóbbaale timis ak géej looloo tax ñoo bokk la nga xam ne waxtu darura ñoo bokkit bu doon da ngay tukki tey fu jant bi sowee rek bu la neexee yéene julli timis ak géej daal di cay génn su ngeen daje woon ca jàkka day muy xitititi ab taw man ngeen a boole timis ak gee daal di cay génn ndax seen waxtu dafa duggante xiina tumsuun wa xiina tusbixuun heure bu ngeen xëyee it te mooy bu fajar xese ba xar su boobaa da ngay gis ne un doomu aadama yi suñu borom sant na leen ñu julli ca mooy fi fajar xare ba baa jant bi di fenk heure boobu heure julli la sunu borom yàlla it mu ne ñeel na ko cant yi ci kaw asamaan yi waaye buñ demee it ba ngoon jot ay tàkkusaan na ngeen julli mooy fi jant bi jàllar bi ko jëm di sowe ji ba baa muy so loolu la ñu tudde ashi su boobaa it julli leen waxina tuzhiruun gannaaw ba it na ngeen julli bu jant bi demee ba pa yegsi ci digg asamaan bi bu jàllar bi ko rek su boobaa yéen julli leen tisbaar ku mel ni imam Shafii day wax ne lii mooy tënk waxtu julli juróom ci alquran donte ne ko mel ni imam Malik moom ma ngay daliloo aaya ba suñu borom di wax ca Isra aqimi salata li duluki shams ila ghasaqi leyl wa quran al fajr la suñu borom ne taxawalal julli bu jant bi jengee ay jëm tisbaar ba ba lëndëmi guddi ya kon loolu lépp day yóbbaale la nga xam ne mooy takkusaan ak lëndëmi guddi ya yóbbaale timis ak gee wa quran al fajr indi la nga xam ne mooy suba donte ne bii moo gën a détaillé kon mbokk yii da ngay gis ne mooy waxtu julli yi suñu borom tënk donte ne waxtu wu nekk utal na ko benn délai benn temps masalan tey jii bu donte ne ñun la en général fi fajar di xare ak fi jant bi sooy dana nekk ay une heure de temps yu teg ay minutes ah fi jant bi fenke dana nekk à peu près la nga xam ne mooy bu dee nattuwaay yi koy gaa yi natt dana mat une heure à une heure et quart ak yu demee noonu loolu du yombal gu ñu yàlla yombalal donte ne léeg-léeg am ay mbokk yi insisté ci waxtu dafay mel ne yenn waxtu yi boo ciy jullee yow da ngaa nekk ci bidaa wala da ngaa dem ci say maam kasa wa kasa mbokk suñu borom dafa yaatal waxtu wi la chaque ne ngëneel nekk na ci waxtu bi wóor na la jot na nga julli loolu moom ngëneel mi ngi ci waaye nag suñu borom may na la ab temps bu yaatu boo xam ne heure boo ci julli julli ngi ci ngërëmal yàlla te moom mooy nga julli ci waxtu yi yàlla yebal jibril alayhi salaam ñaari fan fan bu nekk jibril ñëw premier waxtu bi ànd ak yonent bi julli fanu ñaareel ba mu bàyyi ba ca fin waxtu wa mu ànd ak yonent bi julli gannaaw ba muy dem mu ne ko nag lii mooy waxtu bi kon tant que yaa ngi julli ci waxtu wi xamal ne yaa ngi ci waxtu wi yaa ngi def ngërëmal borom bi waaye malheureusement léeg-léeg da ngay gis ñoom dañuy taral ci loolu des fois it mbokk taral di am ci nattuwaayu waxtu yi loolee da ngay gis ne suma mbokk bi Serigne Ndiaye boo ko laajee da lay wan ne ku mel ne alxusaymin mi ngi koy jàmbat biir Makka biir Arabie Saoudite moo gaa yi da nga am Arabie Saoudite ñoom problème wax ma yeneen réew te mooy léeg-léeg nga gis horaire yoo xam ne day jiitu waxtu bi yàlla wax jullit ñi war ci julli léeg-léeg 10 minutes léeg-léeg 15 minutes. semaine bii rek suñ benn doom bi nekk Italie mi ngi may woo ci jaaxle gu ko dal ndax nee na dañu am trois horaires am ñu ne fajar mi ngi dugg Italie trois heures du matin am ñu ne trois heures quarante am ñu ne quatre heures mbokk xoolal différence bi ñu ne trois heures ba quatre heures une heure daan dox seen diggante am ñu nekk seen diggante def trois heures quarante loolee mbokk da ngay gis ne ñun te mun ta passé loolu mi ngi noonu su ko defee ala kulli xaal nañu xam ni yàlla dafa yaatal bu ñu xatal soo julli woon la nga xamee ni ni mooy benn rakka ca waxtu wi jotagul julli googu baaxul loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu dogi koor yi ñu ciy bàyyi xel bu baax soo julli woon fekk na jant bi des na ko deux minutes mu suux xamal ne loolee baaxul kon nañuy bàyyi un délai ci waxtu wi bam ñuy wóor ne waxtu wi jot na amuñu ci benn chàkk su ko defee loolu ñu basé wu ci loolu mais lépp luy sikk sàkk ci diine rek baaxul loolu kon mi ngi noonu suñu borom yàlla kon tëral la ñu lii léegi nag yow waxtu yow jullit sa borom yàlla de lii la bëgg ci yow mooy waxtu wi defal li waxtu wi defal li waxtu wi defal li jàng nañu suñu darse yu passé inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mooy julli ordonnance la buy faj sa feebari xol di dox sa digganteeg lu ñaaw waaye léegi nag demal médecin bi bindal la benn ordonnance suñu médecins yi en général trois périodes lañ ñu koy wax matin ak ngoon ak guddi léegi nga ne ah waaw man daal jot googu awma ko dajale comprimé yi nga war a jël dans la journée booy tudd rek boolu yëpp naan mbokk loolu lu muy demee musiba di moo lay dal la mi ngi noonu noonu it suñu borom yàlla noonu la def am na wax bu bon bu ñaaw bu tasaaroo ci suñu rajo yi télévision yi suñu ndaw ñu bëri di ko jëfee en Europe ca mooy ci kilifa gu mag laa ko déggee mu ne dafa ànd ak ay gaayam ñu nekk biir Italie di dox gannaaw ba mu ne ko waaw waaw yéen moom kañ ngeen di julli waa ji ne ko hee mara yéen Sénégal yéen a am temps détaillé mais ñun fii en gros la ñuy def da ngay bàyyi bu wàccee rek boolu lépp a julli gaa yi mbooloo mi ree loolu waruñu ko bàyyi noonu ñuy ree mbokk suñu borom Italie ak Sénégal la yemale suñu borom vingt et unième siècle ak siècle ba alxuraan dañ wàcc la yemale yàlla ci mbaaxam moo tax mu yaatalul ñu heure bi yéemul ci yaatalu ñu heure bi mu may ñu ne man ngeen boole tisbaar takusaan man ngeen boole timis ak gee amaa na koo xam ne mu yombal yooyu yàlla def yépp jël nga ko teg ko fële masalan tàkkusaan jot na nga nekk say ittey adduna ba bàyyi tàkkusaan bi julliwuloo ko kooku moo ko amoo benn lay ci yàlla loolu ñu bàyyi ci xel bu baax fajar jot na nga nekk say ittey adduna ba denk ni cinq julliwoo amoo benn lay ci yàlla loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax yéen ñu nekk Occident ca di ma dégg suñ borom yàlla yaatal na waxtoom bu doon dañ ne lañ julli deux heures pile kon problème dana am waaye bu dee ne yow tisbaar deux heures lay tabbi xamal ne ba quatre heures boo jullee julli gi baax bu dee ne tàkkusaan quatre heures lay tabbi xamal ne ba baa jant bi socc rek la mu nekk sax sept heures demi julli gi baax na xamal ne bu dee ne jant bi sona timis su boobaa boo nekk ci ay ngant mën nga koo booleeg julli ba baa xaaju guddi di gée ba baa xaaju guddi di jot bal ñenn ñi sax nee nañ ba baa fajar di xar boo jullee timis ak gée su boobaa julli bi du lu ñuy fay waaye nag gannaaw xuduud yooyu yàlla yombal nañ fexe ba bu ñu jalgati loolu képp ku ko def tooñ nga sa bopp borom bi subhanahu wa taala bàyyi loolu daa di ñëw nag ci ne mooy jël lu dund mu génne ci lu dee jël lu dee génne ci lu dund commenceel sa bopp yow doomu aadama ndax doomu aadama xam nga ne am na benn jamono toq ndox nga woon da nga noonu benn toq ma ni yu bu ndaw nga woon boo xam ne nii tey ji da nga gis tubaab yi wala mënaan tubaab yi sax scientifique yi daañ ko génne ci biiru jigéen bi placer ko beneen jigéen kooku ëmb ko yaa ngi ne kon toq su ndaw soo xam ne kon dee nga du dara suñu borom yàlla wëlbati la def la ngay dundaat noonu it bis boo demee ba midd ba nekk poussière noonu la la borom bi di génnewaat nga am ci sikk sàkk xoolal pepp dugub bi nga jël nga xam ne nii mën nga ko sàq mi kon lii lu dee la nga dugal ko ci suuf quelques jours après mu daal di commencé dund génne gàncaxam commencé dund jóg gattax ba tiim la nga mën ci génnewaat ay góob yu dul jeex sunu borom yàlla kon mu ne moom mooy def loolu mooy jël lu dund génne ci lu dee jël lu dee génne ci lu dund. noonu la koy defee ci wàllu mbaax léeg-léeg mu fekk yonente bu baax ku mel ni Nuux mu génne ci doom ju bon comme doomam jël fekk ku mel ni bàyyi Ibrahim. mu génne ci ko mel ni Ibrahim ay fekk ko baax mu génne ci ko bon fekk ko bon mu génne ci ko baax mi ngi noonu mooy génne lu dee ci lu dund lu génne lu dund ci lu dee jalla wa ala borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne moom mooy dundal suuf gannaaw ba suuf dee ca noonu ngeen di génne ca gone Ndakaaru xamul luy suuf waaye yow mi dëkk ci àll bi nga xool jamono ji nga xam ne jamonoy cooroon boo demoon ci àll bi da nga gis dañuy gajji tool yi bay ko dajale ko ay jal lokkot ko muy taal yépp muy takk doon suuf beñ bu wow koŋ waaye heure bu tawee nga jaaraat fa un mois après fekk lépp di nif nifi ak ak ak ñax mu vert nga jaaraat fa trois mois après fekk géej gerte gaag dugub jaag ñebbe jaag lépp nga mën caa ji lekk ba suuf yàlla mi ko génne ci suufu woow boobu nee na ëllëg si biir noonu laa leen di génne yowmal qiyaama kazalika tuxrajuun borom boobu subhanahu wa taala waxit ne bokk na ci aayaam mooy ñun suñu cosaan ñun ñëpp ci ban la ñuy bindee ñu ngi jóge ci aadama alayhi salaam gannaaw ba mu jël ca faaram nga bind ca soxnaam sa boole leen bi mu leen boole ñu daal di commencé di génn di génn di génn ba tey jii bokk na lu doomu aadama yi wax ñiy dund ci kaw suuf rek mat nañ sept milliards léegi ana ba aadama ñëwee ci kaw suuf ba léegi ñaata milliards ñooy fa jaar yàlla moo ko xam suñu borom nag mu ne moom mi nga jël benn bakkan ci léegi bi ñu demee ba trouvé ADN boobu ngeen di dégg tey jii scientifique yëpp dëppoo nañ ne doomu aadama yi ñoo bokk benn cosaan bu ñu jógee safaano ak saay-saay yi ñi leen jiitoon nan ñu naay suñu maami golo yi ñoo dem ba jur ñu de gis nga ñëpp ñoo bokk benn point de départ te ñun ñëpp ñoo bokk benn maam muy aadama alayhi salaam gis ngeen sunu borom yàlla nag mu ne kattan googu leen génn tasaare leen nooñu yowmal qiyaam noonu la leen di génnindoo yéen ñëpp ci biir suuf kazalika tuxrajuun borom boobu subhanahu wa taala it wëlbati ko waat daa di ne bokk na ci aayaam mu bind ci suñuy bakkan ay ñu mel ne ñun bu dee góor ñi ngay waxal yàlla bindal na leen ay soxna bu dee soxna yi ay ngay waxal yàlla bindal leen ay góor loolu di kawtéefu yàlla doomu aadama yi war a imaginer sant yàlla ci loolu bu dul woon bu doon yàlla dafa toogoon un siècle boo xam ne benn góor judduwul gaa yi kon àdduna du tukkee bu yàlla toogoon un siècle boo xam ne benn jigéen judduwul kon àdduna du tukkee ah kay kon kawtéef gi la yàlla subhanahu wa taala def loolu waaye ngi ne pour lan li taskunu ilayha ngir góor ñi mën a dem di dale ci jigéen ñi dal googu ñuy dal ci ñoom mooy mën a jur àdduna dox looloo tax ba mbokk da ngay gis ne ñi jàpp naan doomu aadama mën na am ay jabari jinne loolu amul tegtal ci alquranul karim yàlla daganulul abadan doomu aadama di am jabaru jinne suñu borom dina xalaqa lakum min anfusikum azwaja waaye waxul mukk min zurriyati iblis azwaja abadan amma nag nit sëyeg jinne loolu moom beneen mbir la doomu aadama mën ngaa sëyeg xar mën nga sëyeg fas mais nag mu nekk jabar ju dagan ci sharia loolu mbokk nekkul lu am léegi nag beneen bi tamit mooy ay waay góor jigéen ñi ah dégg naa Obama ma ngay dem Orlando ngir bak bakk remonté molaaru góor jigéen yi félicité leen e waay waay bu Amérique yépp nekkoon ni góor jigéen tey balaa fii ak un siècle Amérique dootu am di ah bu ñëpp nekkoon ay lesbiennes te mooy jigéen ñi dem fekki góor ñëpp fii ak un siècle Amérique raaf di ah loolee kon mbokk dañuy gis ne ah bu dul woon ak àllaaxira am na bu dul woon ak lu yàlla xaraamal sax doomu aadama ci nature am fu mu gis góor jigéen war a gàddu yàq góor bu mu dee ndax ñooñu dañuy dañuy yàq dundu doomu aadama gis ngeen moo tax suñu borom tudde leen musrifoon ah mufsidin ila axiri ala kulli xaal mbokk góor yàlla da ko bind pour jigéen ñu nekk paire de complété harmonie bu nekk di dox seen diggante amma góoru góor ko détracté rek mooy koo xam ne xelam neexul moo mën a dem di ànd ak moroomu góoram wallahi jigéen dem naan day ànd ak moroomu jigéenam ku xelam matul rek moo mën a def loolu loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax seytaane moo leen ko taaralal mais même bu ko yàlla xaramul woon xel ma rafet mënu ko nangu abadan gis ngeen kon suñuy soxna yi la ñu yàlla wutal loolu it muy wane ne ngalawaay doomu aadama la gën a am solo ci ci looy am ci kaw suuf mooy nga am sëy boo xam ne sëy bu dal la loolu it moo tax ba war ngaa dem ba seet koo xam ne wóor na la soo demee ci soo ko takkee da nga am dund ko dal nga xoolit góor goo xam ne wóor na la boo seeg moom da nga am dund ko dal ndax tamit fa nga xam ne fa ngay dalloo bu fa jàmm amul ana foo jëm ñu ngi noonu ndax fa nga xam ne boo amee problème ci biti boo ñëwee moom moo la war a daral su dee moom boo ñëwee moo lay créer problème foo jëm yaa ngi dégg na doon jëkkër la doon jabar la su ko defee kon ku nekk tamit war ngay bàyyi xel bu baax ci fan ngay dugg ak fan ngay maye borom boobu subhanahu wa taala nag ne moo def diggante góor ñi ak jigéen ñi mawadda muy cofeel looloo tax l'islam du d'accord góor ñu koy forcer di ko may kum bëggul islam du d'accord jigéen ak lu mu tuuti tuuti ñu koy forcer di ko may kum bëggul ndax suñ borom lam jëkk a wax mooy ma wadda su dee cofeel amul seen diggante buñ ko mayante waaye gannaaw bi it yërmaande ku góor ki war a yërëm ku jigéen ki ku jigéen ki war a yërëm ku góor ki di xool lan mooy njëriñu sama borom kër bu ma ko mën a defal ba mu jëriñu ci kontaan ci man lan mooy njëriñu sama jabar bu ma ko mën a defal ba mu jëriñ ko kontaan ci man suñu borom mu ne wala tansaw fadla baynakum kenn ci yéen bu mu fàtte ay ngëneel yu mu yoral keneen le quatre-vingt-dix-neuf pour cent sëy li koy yàq mooy ku góor ki day xool rek moom droit ya mu am ci soxnaam amma devoir ya mu ko yoral loolu nekkul ci loolu soxna siit ma ngay xool rek sama jëkkër defaluma lii defaluma lii am naa moom la mu war a def xalaatu ko waaye bu ku nekk dawale yërmande ci sëy bi def waru garam ci sëy bi da ngay gis ne jàmm rek mooy nekk ci loolu suñu borom nag mu ne xeet yi xalaat day daañu xalaat ci ni yàlla subhanahu wa taala def lii te tamit mbokk loolu xéewul gu yàlla defal la léeg-léeg nga gis benn waay boo xam ne na ko yàlla bindee ku la fayoon cent mille pour nga bokk ak moom benn lal doo nangu ca moo ne boo demee ne jabaram gëmuwu ko gis ngeen jabaram mu ngi ko bëgg ba dee yaa ngi dégg mag ñi dañ koy léebu ñu ne waa bukki noo def ko sa jabar ji bëgg la mu ne bu fa kenn dem rek yaa ngi dégg ala kulli xaal mi ngi noonu kon yàlla mooy xool mi ngi noonu nga gis jigéen boo xam ne ah naka yàlla bind ci ñaawaay kenn xamul lu mu mel waaye boo demee am na sàmm càmm moo xam ne ni bu ko gisul xelam du daal loolu kon mbokk da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala moo koy def kon it nañ xaar ba ku nekk ñu xool ka yàlla def na bëgg na ko su ko defee ñu bàyyi ko mu doog a sëy kooku mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون jazakallahu xayra suñu borom kon mu ne wa min ayatihi bokk na ci kawti fi yàlla xalqu samawati wal ard bindug asamaan yi ak suuf waxtilaafu alsinatikum ak juuyoog seen làkk yi muy seen làmmiñ yi wa alwaanikum ak seen couleur yi muy seen der yi inna fi zalika la ayatin lil alami lil aalimin nekk na ci liiree kawtéef ñeel aji xam ya wa min ayaatihi bokk na ci loolu ba tey manaamukum bil leyli wan nahaar nelaw yi ngeen di nelaw ci guddeeg bëccëg wa btigaaukum min fadli ak sàkku yi ngeen di sàkku ci ay ngëneelam inna fi zalika la ayat nekk na ci liiree ay kawtéef li qawmin yasma'uun ñeel xeet boo xam ne dañuy dégg wa min ayaatihi mu bokk ci ay aayaam yurikumu barqa xawfan wa tamaa moo leen di won melax ga ci ak tiitaange waaye ci ak xemmemte wa yunazzilu min alsamaai maa mu wàcce jële ko asmaan ndox fa yuxyi bihi l arda bada mawtiha mu dekkal ci suuf gannaaw ba suuf deeye inna fi zalika la ayat nekk na ci li day ay kawtiif li qawmi yaqiluun ñeel xeet boo xam ne dañuy xellu ni ngi noonu bokk suñu boroom jalla wa ala gis nañu bañ commencé lu bari suñ bind bi borom bi di ñu wax ay wa min ayatihi te suñu boroom gisuñu ko te duñ ko gis lu dul yowmal qiyaama waaye won nañu ci ay kawtéefam lu ñuy won kàttanam dañuy won xam-xamam dañuy won xikmaam dañuy won la nga xam ne mooy yërmandeem waaye itamit muy feeñal ne ndekete moom dong mooy moom waaye moom dong yi yoo ñu koy jaamu mu ne bokk na ci kaw téefam mu bind asamaan yi ak suuf te loolu kenn xëccoowu koog moom kenn xëccoowu koog moom man ngaa jàppale sa njiw mooy joxe wërsëg yi moo tax nit ñi nekk ci jàmm moo tax kaza kaza comme ni ngeen ko dégg rajo télévision waaye moo bind asamaan ak suuf moom doo ko dégg mi ngi noonu sunu borom it mu ne bokk na ci kaw téefam yi sunu làmmiñ yi wuutee ñii di làkk chinois moo tax gaa yi yéemawu la dégg ab suuna mu ngi naan cing cing cing cing cing la muy wax xamoo ci dara yaa ngi dégg dara xamoo ko ci man tamit moom bu la dégg ngay làkk wolof mu naan bisimilah jàpp nii li ñuy wax nii loolu mbokk sunu borom gis nga ni ñu ko defaree nga dem ci race yi nga dem yépp tey jii dañ naan la en Afrique y a plus de huit cent dialectes yi ñu fi wax yoo xam ne kenn bokku ci ak sa morom ba duggal fi biir Casamance ñaata façon làkk nga fi mën a génnee ku nekk di wax wax boo xam ne kenn mënul ne diw moo créé langue sangam nga noonu nit ñi di ci wax seen soxla nga delluwaat ci biir làkk benn làkk nga fekk ci ay wax yu wuute masalan wolof bi ma gën a xam tey jii ab gànjol gànjol day wax nga dégg ci waxam benn waalo waalo wax nga xam ne kii waalo waalo la nga dégg saalum saalum wax nga xam ne kii de saalum saalum la nga dégg ab lébu wax mu ne alab lébu nga xam ne kii de ab lébu la loolu mbokk loolu suñu borom moo ko def waaye nga delluwaat ci nit ñi kenn ci doomu aadama yemuwul ak doomu lam lamiñ ka ca des am déet gars yi dañuy gis président bu dee woon yaa cinquante ans buñ ko tegoon rek mag ñi ko fekk naa kii day dëggoon la am déet keneen amaatul baatam depuis mu dee ba léegi kenn amu ko su ko defee da ngay gis des ingénieurs du son léeg-léeg benn waay wax ay wax sax ñu wax ko fekk musiba la mu weddi ko waxuma ko waaye bu gaa ñëwee ah sëñ bi yaa ko wax gis ngeen kenn yemul ak sa morom lakk doomu aadama mën nga koo gëj a gis vingt ans nga toog mu wax rek nga ne ah baat boobu day baatu diw la ah loolu nekk loo xam ne nii lu lu lu lu lu yéeme la bal benn waaye nettali na ma ci lu yéemu fii ci foire bi foire bi ñuy jaay nag yi benn ci seen mbokk yi jógee foofu Fuuta dafa dem di ci biir foire bi ni muy waxee noonu rek dégg benn nag nag bi di jooy di jooy mu ne nag bii de suñu nagu dëkk la te fekk mi ngi ci beneen partie mu dem ba ci moom teg ko loxo bi rek nag bi noppi mu laajte ko moom nag bi nekkati seen waa dëkk ñoo ko indi di ko jaay ndaysaan waa ji jënd nag bi ne nañ ko delloo dëkk ba bu ko kenn rey bu baa muy dee mais li ci yéeme mooy nag bi gisu ko mais da koo dégg muy wax rek nga gis ne mu daal di commencé di di jooy jooy goo xam ne moom it bi mu ko déggee rek xam ne ne kii suñ nagu dëkk la nga gis kon mbokk suñu borom jalla wa ala ni muy teqalee baat yi ki am xar ca xam xar dëgg dëgg dëgg fu xaram mbeeme dana xam kii saa xar la mi ngi noonu loolu kawtiifu yàlla la alsinatikum nga ñu it mbokk alwaanikum yàlla def ñuy jaune def ñuy weex def ñuy ñuul mi ngi noonu donte ne nii boo demoon tey bu njëkk doomu aadama yi dañuy gisoon ne bu doon tubaab yi dañ daan jàpp ni nit ku ñuul moog bàyyi bu ñooy amul am lañ daan wax mais xoolal tey dañ ñu demee ba àdduna dox États-Unis bi nga xam ne dañoo séparé woon doomu aadama nit ku ñuul amul droit toog fi amul droit train bi amul parce que dañ jàppoon ne bokkuñu ñoom ay nit à part lañu tey ñun dund nañu ba nit ku ñuul nekk président des États-Unis kon wañe ne la yàlla waxoon depuis quatre siècles mooy am doomu aadama yi benn lañ ñoo bokk benn maam suñu borom en cours de route rek la couleur ñii changé langue ñii waaye ñun ñëpp benn lañ moo tax da ngay gis góor ak tubaab di sëy ak jigéen nit ku ñuul ñu sëy nekk ci normal am doom normal sans problème lu tax mooy ñun ñëpp benn lañu borom bi nag mu ne ñii xam day dañu xam ne lii moom kawtéef ak borom bi la subhanahu wa taala borom bi wëlbatiku waatit ne bokk na ci kawtéefam nelaw yi ñuy nelaw guddi di ko nelaw bëccëg doomu aadama buy nelaw bu ko neexee nelaw guddi bu ko neexee nelaw bëccëg donte ne nelaw guddi moo gën moo tax yàlla jiital ko ak it sakku bi ñuy sakku wërsëg na am am na kii mi ngi nekk kaaru xëy kii moom mi nga nekk kaaru gont lu ko xam ne guddi lay liggéey kii bëccëg lay liggéey waaye xoolal tey ah Samba Ndiaye mee nga xam ne deux heures du matin ma nga ca lalam di xandoor xool ko ak deux heures ci bëccëg ba mu nekkee fii di kër këri ci liggéey xoolal ñaari différence yooyu kooku yàlla moo ko ci def am déet. te moo di leen da ngay gis nit kiy nelaw ak nit kiy liggéey xoolal seen différence yàlla mi ko nelaw loo woon ba mu nar a nekk di gént ay gént yu kenn xamul ba nga mën a ñëw yenn ko sax yóbbu ca moom du ko yëg yàlla moomu mooy tax bis bu dee mu mën ko dekkal moo tax mu ne bokk na ci kaw te fi ngeen war a gëmee dee dekki mooy nelaw di yeewu moo tax yow jullit boo yeewoo li ngay jëkk a wax mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana ñi ngi sant yàlla mi ñu dekkal gannaaw ba mu ñu reyee wa ilayhi nushur te ci moom la ñuy dajale ëllëg dañuy yóbbu borom boobu nekk ne kon kuy dégg day war ngaa def ci leen kawtéef borom bi indi kawtéef yu mujj yi te mooy bokk na ci kawtéefam moo leen di won melax bokk melax googu mooy dënu gi mooy ànd ak melax bi boo ko gisee tiit ndax day rey lu bëri ci doomu aadama yi chaque année nga dégg ñu mu rey fii donte ne melax googu di annoncé taw te taw bu nu ëpp melax moo lay gën a bari melax googu itamit dafa am engrais bu muy def ci kaw suuf mi ngi noonu nawet bu bëri ay melax day tax gàncax gi gën a bëri moo tax borom bi ne xawfan wa tamaa gannaaw ba suñu borom yàlla mu ne mu wàcce ndox jóge kaw asamaan daal di dekkal suuf gannaaw ba mu dekkee yow mi gis loolu taw bi ni muy ñëwee dekkal gàncax gi da lay ca ngay borom xel da ngay xam ne yàlla day heure bu ko neexee dana dekkal mboolem ñi dee woon ci biir suuf yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi xellu yal nañu yàlla boole ci jaamam yi koy wéetal xam ne lépp moo ko bind lépp moo ko moom ay jaamam la ñu yàlla ñu tàggat ñu jaamu ko mu bokk ñu ñi muy teral ci àjjana ya waala kulli xaal day leeral rek ci ni li ñu waxoon sànq ci ni jigéen kenn amul droit di ko may ku mu bëggul ça ne veut pas dire it ni képp ku mu bëgg rek da nga ko ko war a may heure bu la indilee koo xam ne wóor na la baaxul ci moom su boobaa da ngay gis ne li tax maye gi yàlla teg ko ci loxo kilifa gi tegu ko ci loxoom tegu ko ci loxo yaayam da ko teg ci loxo kilifaam mi koy ëpp expérience ngir ëllëg gi si biir heure bu gisee koo xam ne nii mën na ko suturaal mu jox ko ko bu gisee ku koy lorit bu ko ñaanee mu bañal ko loole kon da ngay gis ne ñaari tartar la boo xam ne effectivement lu jar a leeral la mi ngi noonu waaw bismillah naam naam waaw ñu nga doon wax ci wàllu ci horaire yi julli naam ci mas a dégg imam Sall mu koy nett yi sax yàggul sax Hmm.
mu ne moom mas nay doxantu ci boori tef bi waaye mi ngi dégg nodd nga xam ne ci horaire lañ ko basé wu mais bi mu xoolee mi ngi gis jant bi waaw waaw waaw effectivement waaw waaw day wax rek ne ah, imam Aboubacar Sall hafizahullah day wax ne pour heure julli yi rek niñ koy tërale léegi ci heure ñi ciy base wu ci horaire international yi day tax ba nee na bis mas na nekk géej ah, dégg ay jàkka yu nodd ci mi ngi jàkkaarloog jant bi kon day fekk liñ doon wax rek ala kulli xaal ñu ciy tey wallahu alam naam bismillah naam waaw bismillah waaw benn mbokk dafa papam ba gaañu am benn mbokk bu jigéen ci ci ci kaw mu ne kaay tàkkal Hmm.
mu mbokk dafa wax yàlla sa papa ba kaay nga ci kaw kaay tàkkal
dafa gént papaam dafa gaañu keneen gént gént na ko dafa gis man day gis naa sa papa mi ngi nekk ci ay xat-xat na nga ko ñaanal ñu jàng jàng ko kaamil waaw ala ko waaw waaw ni nga sa papa ngi ci ay xat-xat na nga ko ñaanal kooku dafa xamul sunna mbokk nga gént nit ki dee nekk ci ay xat-xat soo ko géntee da ngay ëf sa côté càmmooñ ñetti yoon ñaan yàlla musal la ci loolu nga bañ koo nettali kenn seytaane danay def loolu mooy def loolu yonent bi alei salaam nee na gént gu rafet ci yàlla la jóge gént gu naqare ci seytaane la jóge loolu kenn du ci basé su ko defee loolu wuru ko ko woon wax wuru ko woon nettali kenn heure bu ko gisee moom mën na ko ñaanal ci boppam waaye wurul dem di nettali kenn naan diw ko dama koo gént mi ngi ci ay xat-xat ndax lu ci bëri ci seytaane lay jóge comme léeg-léeg nga gis ñu bëri ca nañuy jàppe seeni nit benn waay day dee fii am koy gént naan maa ngi ko gis ci kaw asamaan yi biir àddina nga jàpp ne bu doon ku ñuy topp ci neen la ñu jàpp ne noonu la mbokk déedéet ala kulli xaal ay gént deesu ci basé wu ci ne lii réalité la bu am rawatina mënees naa rafet njort ci gént bu gént gu rafet mais bu dee gént gu ñaaw moom yeneen ci bi dana bu ko nettali kenn ñaanal seytaan musul la ci ayam rek mu jeex naam bismillah naam waaw ndax am nga tey li ñu wax rek sàkk bi jox ñu mu fàtte mu ngi ci loxo bu loolu ala kulli xaal fase góor mooy fase lu dul ne jigéen am na droit bu amee lor ci sëy bi mu delloo lañ ko joxoon ca génn ci sëy bi jigéen defu ñu ko prisonnière ci góor na ko amoo droit génn ci ba faww déedéet heure bu lor bu sharia nangu amee dana dem ci attekat yi mu may ko baatam ci jàmm nangu koo may mu delloo ko lañ ko joxoon ca génn ci sëy bi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah
Voilà. 7h47 léegi dañuy xaar ngeen wóor la ne avant
pour heure dog bi ndax 7h47 la yëgul foofu 7h47 ñoom dañ koo def heure julli en général ñi ngi def heure dog bi ay 7h40 su ma juumul ah 41 ka ka ka ka waaw 41 ñi ngi def 41 su ñu juumul la nga xamee ni day moo ca gënoon mooy boo munta bàyyi ba 43 yit nga bàyyi ba 42 yaa ngi dégg mbokk sa montre bi mën na am retard ah calcul yooyu mën na am retard te it boo xoolee naam boo xoolee heure bi ngay commencé woor yaa ngi départ presque 5 heures 30 di woor ba 5 heures 30 ci ngoon du 12 heures day nga dellu ci leen 2 heures muy 14 heures wala 15 heures ne da nga woor ko gars yi 3 minutes kese jarul yàq sa koor yaa ngi dégg mais doomu aadama suñu borom mu ne yàlla du ko bind ci yàkkam ci am na ñoo xam ne bu ñu demee ba naan jot naag jotul dafa mel ne ci ay xal la jot mi ngi naan xam nga xale yi nga dégg waaye waxal waaye papa jotagul jotagul jotagul te yaa ngi muñoon 14 heures de temps mais 3 minutes yi ciy des kenn du xam lu mu demee su ko defee loolu ñoo xam ne seytaane moo koy def yal na yàlla nangul ñu suñuy koor ah ah ah waaw sutura yeeg télé yi dañuy dañuy continue dañuy concours jëkkante ay techniciens fay nekk techniciens yoo xam ne jànguñu charia jànguñu dara dañuy xool heure rek daal di teg kii bi nodd gi su ko defee ñu bari daal di ci bazo dog ala kulli xaal daal ñu ciy teey wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaw waaw ala kulli xaal suñu borom mu ne ndax jigéen bu dee takk na jabar jabar jabar ja ko war a fóotal passé gi dama noonu naam suñu borom dane anchuruhunna bil ma'ruf jabar dañ koy yor ci njekk jigéen buy sëy day yor njekk ma'ruf mooy li ñu xam ci société bi dëkk bu nekk ak aadaam aaday Sénégal ku ne xam ne ni jigéen mooy toggal jëkkëram moo koy fóotal moo koy paaseel léegi loolu dañuy gis ne jigéen ji bu dee ñëw na loolu da koo war a defal jëkkëram ndax loolu mooy maaruf bi ñu xam jëkkër ji nag bu amee mbaaxam ak kattanam mën a koo utal ku ko koy taxawal loolu moom beneen mbir la waaye bu dee ne loolu amul jëkkër bu dee am jot na jabaram la koy laaj bu ay yërëm tilimee jabaram la koy laaj yàlla na yàlla defar suñu diggante suñuy jabar may ñu kër yu nekk ci jàmm ak barkeel kër yu sax ba nekk kër yu àjjana wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad